sëriñ bi euh, maxtar Naarlo ñu ngi lay nuyu ci sa tur ak ci sa sant di nuyu waa daar Koki yëpp ci nuyu bi itam maa ngi ciy boole autorité administrative yi yi fi teewale également président de la république mu di ministre bi fi nekkoon sànq faatu jaane di nuyu gouverneur di nuyu maire yi fi nekk yëpp. di nuyu mbooloom kilifa kilifa yi nga xamante ne ñoo fi teewlu autorité administrative yi fi nekk autorité di du fa nag su ngeen ko déggee dafa di benn administration boo xamante ne état daf ko fi teg pour mu gunge daara yi waxtaan bu bëri am na fi déglu naa fi yu bëri am liggéey bu am solo boo xamante ne daara daf ko def suñu réew bu ngeen déggee waqf nag sànq am na kenn ku ko doon expliquer di naan waqf ci benn addisu islaam la boo xamante ne dafa ne nit su dëddoo ñett moo mën a mooy jëf yi nga xamante ne ñoo ko mën a topp ba ci bàmmeelam ndaxte lépp taxaw na tudd na ci doom ju baax boo xamante ne da ko fi bàyyi mu lay ñaanal mu tudd itam xam-xam boo xamante ne da ko fi bàyyi waaye bi nga xamante ne am na solo te nga xamante ne jullit yi war na ci mën a gis boppam ba pare war ci mën a liggéey moo di sadaxa jaariya sadaxa jaariya na eh, sadaxa jaariya nag bu ngeen ko déggee moo di wax te dafa am solo itam ñi fàttali ne fii nii di kokki ab wakf daara ji ab wax la dafa am recensement boo xamante ne dañ ko defoon maanaam benn enquête bu ñu doon def 2019 ñu wax ne ñetti téeméeri wakf ba ñeenti téeméer ñoo am ci Sénégal waaye fi nga xamante ne foofu la waqf ëppee fii ci Sénégal fii ci Louga la maanaam boo jëlee téeméer ñaar fukk yi ñu ngi fii ci euh, région de Louga te li ko waral mooy liggéey bu am solo boo xamante ne kilifa yu mag yi def nañ ko fii nii ba nga ba taxawal lu mel ni daaray Koki dégg naa tamit am na benn liggéey bu am solo boo xam ne war nañ ko def ci fan yi moo di levée de fonds levée de fonds nag bu ngeen ko déggee dafa nekk loo xamante ne ci yoonu wax daf ci am solo am na ku fàttali itam liggéey bu am solo boo xamante ne ki ñuy wax góor a jóob defoon na ko fële ca Ndar mu di alal boo xamante ne da ko dajaloon defoon kër mu dëkkal fa jullit ñi ci kaw loolu mu defar tamit beneen kër boo xamante ne da ko luwe woon muy jur da muy jur alal muy dimbali néew ji doole yi nga xamante ne dëkkaloon na leen fa loolu yëpp muy ay xeetu waqf yoo xamante ne am na solo nit ñi xam ko fi te tey ji Sénégal li fi bees mooy depuis 2015 président de la république Macky Sall dafa def li ñuy wax la loi relative au waqf maanaam képp képp koo xamante ne da doon def sa waqf nga ko doon def sa biir kër léegi dafa am benn loi boo xamante ne dañ ko voté assemblée nationale mu tënk lépp maanaam boo defatee sa wakf maanaam nga jël benn alal nga ne man de lii de dama ko jagleel néew ji doole ji dangay dem ci notaire soo demee ci notaire dafa am kayit bu muy def mu jableel ko haute autorité di wakf ndax ñu mën di koy saytu mu di lu am solo waaye président de la république Macky Sall yemul ci loolu dafa am projet bu mag boo xamante ne fële ca Ndakaaru dafa am suuf bu mu joxe nee nañ fa tabax immeuble. immeuble boobu noonu nag suñ ko tabaxee immeuble 16 étages la ca centre ville de Dakar lépp lu muy jur ci alal ci daara la jëm mu di loo xamante ne lu am solo la lu laaj loo xamante ne dañ ko war di vulgariser waaye suñu xel dal na tey jii bi ñu ñëwee ñi gis na ci waxtaan yi boole nañ ci wax te loolu lu am solo la. jërë du ma guddal wax ji nag. Euh, di leen di sant di leen di gërëm jërëjëf. Euh, jërëjëf monsieur Racine Ba kon euh, dañuy jox ki nga xam ne mooy secrétaire. ci loxo suñu sëriñ sëriñ Mokhtar Naar mu jox ko mbooleek njaboot gi ak mbooleeg taalibe yi yàlla dafa dogal ñu ñëw fi tey ci turu ministre de national nationale Cheikh Oumar Anne mu indi benn délégation ma jiite ko en tant que inspecteur des daara ànd ak inspecteur Moussa Niang ànd ak madame Aïssatou Touré. yàlla dogal mu am empêchement ni bu ngeen demee na ngeen ñu présenter suñuy excuse mu joxoon ñu euh, lu toll ci dix tonnes de riz jox ñu mille litres d'huile jox ñu une tonne de savon et de eau de javel boole ci un million de francs barkeeloo ko ci bis bi loolu nag li muy wund rek mooy dafa jàpp ni képp kuy yëngutu jàng ak jàngale moom ngay dimbali yaakaar naa ni li ma sama collègue bi wax léegi ci rencontre nationale bi ñu defoon le 28 passé wane na ni képp kuy yëngatu ci jàng ak jàngale xeetu jàng bu mën a doon yaakaar naa ni état ngay jàppale moo tax président ci daje boobu li mu wax mu leer na naññ dafa ni dafay jël daara yi intégré leen système bi jox leen seen àq comme li mu koy joxee ñuy jàng tubaab parce que ci réew mi warut am discrimination kuy jàng tubaab ñu bàyyi la mettre la ci condition yu baax ku jàngale neen ñu bàyyi la ak sa bopp yaakaar naa ni képp kuy jàng li ñuy wax éducation mission régalienne la bu état moo tax bërki démb rek ci rek képp kuy suivre actualité di nga gis ni recrutement yi ñu doon def di ko yegaleel ñu jàng tubaab am na changement bu ci am ñoo ngi ñaan yàlla mu jëm ca kanam parce que dañu def option français def option arab def option daara war nañu recruter ren gën kaa néew juróom fukki sëriñ daara pour intégrer dans la fonction publique information mi ngi jàll ñu bàyyi ci xel. beneen bi instauré li ñuy wax journée nationale des daara mu institué ko au niveau du Sénégal troisièmement am na la grand prix chef de l'État pour la pour les daara ñu war ko institué pour wane ni am na beneen tendance bu bees am na benn mouvance bu bees ngir delluwaat daara comme ni ko mbokk yi waxee taalaat jàngu da jàngukaay Alxuraan yi ñu dekk ca kaw ca kaw a kaw kawul loolu mooy eh, mouvance bi yaakaar naa ni li nga ko waxee ci benn xadis mutakallamun fiihi inna li rabbikum fi dahrihi la nafahaat inna li rabbikum fii dahri la nafahaat ala fa taarradu laha yaakaar naa ne Sénégal ngelaw li bu upp fi mu nekk nii mooy daara ñëpp delluwaat ci daara dañu dem Louga ci benn mission am benn waay bu jël kàddu mu ne daara ci Sénégal bërigu la ci mbartal daara ci Sénégal mu ne bërigu la ci mbarkal ku ci teg sa loxo mu dem ku ci tegu sa loxo mu dem ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp bëggu ñoo guddal. waaye daal ñoo ngi wax ci turu ministre de l'éducation nationale Cheikh mar Anne ni pare nañu pour jàppalante ñëpp kii daara dem ca kanam. salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala bismi mudiri hada almahad wa bismi amini jamiyati xiriji hada almahad wa bismi awliyaai umuri tullabi hada almahad nurahibu bi saadati safiri xaadim alharamayn alsharifayn fi dakar al ustaz saad abdullah annufayai نرحب به في رحاب هذا المعهد الإسلامي الكبير الذي يضم بين جنباته اليوم أكثر من أربعة آلاف طالب وطالبة يتلقون كل الخدمات هنا مجانا التعليم والصحة والتغذية والرعاية بفضل الله سبحانه وتعالى وبهمة مؤسس هذا المعهد والمشرفين عليه وبجهود أبنائه الخير الخير أبنائه من خريجي هذا المعهد من رجال أعمال ومدرسين وموظفين وبجهود أيضا سكان هذه البلدة الطيبة المطهرة التي تأسست على العبادة والعلم والتربية وبجهود أيضا حكومة السنغال وعلى رأسها فخامة الرئيس ماكي سال وبجهود أيضا أبناء المسلمين من كل أنحاء العالم وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية التي تعتبر الوجهة الأولى لطلاب هذا المعهد حيث يدرس حاليا في المملكة أكثر من 100 طالب من خريجي هذا المعهد وتعتبر هذه المؤسسة المؤسسة الأولى التي ترسل طلابها إلى مختلف جامعات المملكة من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال لا توجد جامعة fiha bi'asat ta'limiyya ajnabiyya illa wa fiha tullab min xiriji hada almahad wa dalika bi makrumati xaadimi alharamayn alsharifayn wa bi makrumati abnaayi almamlaka wa lilmahad alaqat tayiba wa ariqa ma alsafara alsaudiya alaqat tamtaddu ila asharati sinin wa tazdaadu hadihi alalaqa mataanatan wa tazdaadu hadihi alalaqa aydan quwatan bifadli juhudi alsufara alladina tawaafadu ala الإشراف على سفارة خادم الحرمين الشريفين باسم مدير هذا المعهد نجدد الشكر لكم كما ندعو لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبد سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده ندعو لهما ندعو الله أن يوفقهما ويسدد خطاهما وأن ينصر الإسلام على يديهما كما ندعو أيضا للمملكة العربية السعودية شعبا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ شعب المملكة العربية السعودية ويديم في المملكة نعمة الأمن والأمان والاستقرار مرحبا بك سعادة السفير وأيضا نذكر بأن الأستاذ سعد نفاعي هو أول سفير سعودي يزور هذا المعهد بالرغم من هذه العلاقة القديمة وقد أصر على زيارة المعهد باستشارة أخينا رئيس غرف التجارة والصناعة في السنغال الأخ سرين بوب الذي qaddama lahu daawa mundu salaasati ayaam aw xamsati ayaam faqat wa asarra safir ala xuduri hadihi alxafla ragma mashaaq safar wa suubat uh, wa waarati tariq waqad aqaama safir fi luga yowman kaamilan intizaaran lintizaari almaji ila kokki idan nubaariku lakum hadihi aljuhud wa nubaariku lakum hada aljihaad wa natamanna lakum tiba aliqamati fi hadihi albalda asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. السادة مديري السي السادة مديري معهد دار الكوكي لتحفيظ القرآن الشيخ أحمد مختار نارلو أعضاء المعهد الإسلامي أحمد الصغير لو بمنطقة كوكي إنه ليسرني أن أقف بينكم لأكون أحد الحضور في هذا لهذا الصرح العظيم الذي ابتداه الشيخ أحمد لوح منذ 1939 وكان بداية موفقة لأن يكون صرحا ليخدم كتاب الله بتحفيظ أبناء المسلمين وخاصة أبناء السنغال السنغال البلد الشقيق لكتاب الله الكريم واللغة العربية التي هي أصل ديننا وكتاب كتاب الله هو شريعتنا القرآن, القرآن الكريم أهمية بالغة ومكانة عظيمة للمسلمين فلذلك أولت خاد حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عناية وسمو ولي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء رعاية عظيم عناية عظيمة ورعاية كبيرة وجهودا مشكورة لخدمة كتاب الله وسنة رسوله فقد بذلت المملكة جهودا عظيمة في خدمة القرآن ونشره حيث يطبع كل عام ما يقارب 20 مليون نسخة من القرآن الكريم وتوزع على المسلمين في جميع أنحاء العالم في الحقيقة التي لا تلتبس فإن مدارس القرآن الكريم في السنغال ومنها دار كوكي لعبت دورا كبيرا في التربية الإسلامية وتوجيه أولاد المسلمين ان هذا البلد ان ان, إن هذا البلد اللي هو السنغال احتضر مدارس عظيمه منها مدرسه كوكي ذات التاريخ العظيم ذات تاريخ عريق وهي مدرسة الشيخ أحمد الصغير لوح بكوكي الذي تحتضن الطلبة من جميع من, من جنسيات مختلفة يحفظون كتاب الله ويتعلمون الشريعة الإسلامية السامحة التي لا تعرف لا عنف ولا تطرف ولا إرهاب إنه ديننا الإسلام دائما يدعو إلى الوسطية وهذه رسالتنا في المملكة العربية السعودية إلى نبذ التطرف والإرهاب ودائما إلى الصراط المستقيم التوجه إلى الصراط المستقيم والوسطية حفظ الله السنغال وشعبها وبارك الله في معهد كوكي وحفظ الله مملكتنا العربية السعودية من كل سوء وولاة أمرنا السلام عليكم ورحمة الله بارك الله فيك سعادة السفير والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله أجمعين asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbokki jullit yi ñu ngi nuyu nuyu lislaam ci turu sëriñ Sare Mbay bi nga xam ne tey moo fi xalifa maam Cheikh Mbay mu yebal ma ànd ak délégation bu takku ñu teewal ko fii ma di ci tudd rek doomu sëriñ Njaga Mbay ñu mbooloo mi ñu toog ñu ngi ñaan mbooloo mi ñu toog xaar may ñu àggale ñu ngi ñaan mbooloo mi ñu toog may ñu ñu àggale te déglu ak njabootu maam ñu déglu kilifa gi wax. ñu ñu déglu. ak njabootu maam Cheikh gépp nga xam ne teew nañ fii ci turu Serigne Sayar ñu ngi nuyu Serigne Makhtar Naar Lo mi nga xam ne mooy kilifa daara ji di ko nuyu di ko gërëm di ko sant ci taxawaay bi di nuyu itam ñëpp ñi nga xam ne ñoo koy jàppale ci daara ji. tàmbale ci sëriñ fàllu ba ci suuf waaye di beral nuyoo kilifa diina yi fi teew yépp ak autorité administrative yi muy ministre bi teewaloon président de la bi ak monsieur le bu Louga ak délégation mu àndaloon ak maire yi waaye di nuyu itam sëriñ Xabaar Diop mi nga xam ne mooy borom dëkk bi xam naa ne kàddu yi day gàtt ndax gannaaw bi ñu santee sëñ Maxtaar Naar ci taxawaay bi nga xam ne moom la taxaw ci daara ji wutu fi waajuram ma sëriñ eh, Ahmad Saxiir Lo sëñ Fall wax na ko léegi cosaanal daara ji bisu gàmmoo la ko maam Cheikh Bay am nu woowoon ne ko kaay dem kokki boo demee na nga toog fa di jàngale bi bi muy ñëw itam ñu ngi sant sëñ ma sëñ xabaat jóobaa kokki ndax sëñ ma debbo Diop booba moo fi nekk yaakaar naa di boroom dëkk bi moom la ko maam Cheikh booleel ne ko boo demee nga dalal ko ba muy dem nag daf ko yeb ne ko dey mënoon naa yóbbu ñoom rek nga dëkk waaye demal kokki loolu sëñ waa kokki kon am nañ ngëneel ne nii ngëneel yu réerée ndax sëñ ma bu demoon ñoom wala feneen lii duñ ko am waaye bu ne ko demal kokk yi ndax kokk la yàlla wax boobu yi dem it daf ko yeb wa is yamkuru bika llaziina kafaru li yusbituuka aw yaqtuluuka aw yuxrijuuka wa yamkuru llaahu wa laahu xayrul maakiriin aaya boobu la ko yebeloon moo tax kokki daara joo xam ne nii képp koy fexeel da ngaa xamul waaye yeb boobu nga xam ne ca aaya boobu nga xam ne ci jamono yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam nga xam ne daara ku koy fexeel wala alxuraan xam nga yàlla ngay bëréer kuy fexeel daara yàlla ngay fexeel te yàlla moom ku fexeel boom yaakaar naa wala ëpp ay pexe kon daara ji lu ma sa dal xel la sëñ ma sax itam sëriñ Saam radiyallaahu anhu daan wax ne ngëneel ñaar la dafa am fadlul xusoos yi wal xarul ictisaab yi sëñ ma saxeet ñaar yëpp dafa daje woon ci moom bi bi daa wax ne sama sëriñ bu baax ba day lëm ma diggoon ci daara ji asaka ji sax gis leen ko asaka ji sax gis leen ko bi mu ñëw itam dafa yóbbalu muy muñ ak dëggu ak sellal ak njàmbaar moom lañu moom la ko maam Cheikh yabaloon sabrun ala taabi fil bidaaya nahyu dayul manaa wal xaaji fii nihaaya loolu ko maam Cheikh waxoon ne ko muñ coono ci tàmbali bi day yàgg-yàgg buj ga da am sa li nga bëgg mu daldi wax ne que fadub ala sabri fa kul bat yi la hóori nihaayatu wala an bot yi na nga sax ci muñ ndax tàmbali bu nekk day jafe waaye muj ga waaye waaye mujj rek mooy li nga bëggoon na ko am sëñ ba saxir ci la nekkoon kon sëriñ Saer tey mi nga xam ne moo fi nekkal maam Cheikh mbay mi ngi xamal sëñ Maxtaar ak booleem jullit yi fi teew ak luñ fi def ak xéewal yi ñu fi def ak alal yi fi def yëpp jàpp ne kum ku moom lañ ko defal ndax tey moo fi maam Cheikh mbay ndax daara ji buñ ko tudd bukk te tudd ñëwaat sax moom lañ askane kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp te xam ne moom alxuraan mooy lépp. man solo si yokku daa xadda xasan fa ida afiolu ajar karimun loolu la alxuraan wax kon képp koo xam na ni def nga ci daara ji suñu borom ngay lebal te suñu borom koy lebal am na fay masol la seen yun fuqoor fi sabilillahi kamasali habatan an bat sa basala bi la fi kul bati safat da asalaamaaleykum wa rahmatullah ci gàttal liñ bëggoon wax bari na lool waaye waxtu woo ñu jot waaye ci gàttal rek ñi ngi dellu di gërëm ah, sëriñ naar Naarloo ak ñi nga xam ne ñoo ko jàppale ci daar ci turu sëriñ Sayar ak euh, mbooleem defkat yu baax li ndax daara ji kat sëñ Ndiaga mi ma waxoon léegi muy doomi sëñ Saer Bay ma ànd ak moom fii la jàgge te sëñ Saer mii tey nekk xalifa am na Louga googu rek def dafa ñeenti daara yoo xam ne nii ci kok gi lañ lañ sosoo boo demee fële mu dëkk ca deppal ak kër jaaga ay daara alxuraan fo muy la juróom-ñaari daara ci gox boo xam yëpp daara kooku mel ni meññ asalaamaaleykum wa rahmatullah waaye ñu jëm ko may nopp rek incha allah ay min yu gàtt rek bala ñoo jublu ci julli gi incha allah. aoudu billahi min asheytaani ala nabi rahma sayidina muhammadin salawatullahi wasalaamu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa wala bokki jullit yi ñu ngi leen di euh, nuyu di leen matsawu coono ci euh, coono yu bari yi nga xam ne moom ngeen jànkuwanteel ba ñëw fii wuy si suñu woote bi woote bi nga xam ne euh, ñi génne woon ci daaray kokki génération yi depuis 1939 ba léegi ñoom ñoo daje ca 1980 ne incha allahu taala fas nañu yéene dajale jullit yi ci at mu nekk ngir man leen a jàppandalal seenu jàppale ci daaray kokki moo xam ñi bëgg a ñëw wala ñi nga xam ne si ne ñoo mënta ñëw ca bëgg koo euh, suivre ci à travers euh, média yi wala ci beneen yoon ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ñi ngi sant ñëpp ci coloré gi nga xam ne si ne moom ngeen fasanteel ak Daaray Kokki bu yàgg ba tey booba ba tey ngeen jàpp ca bàyyiwu leen coloré euh, googu nga xam ne si Ahmad Sakhir Lo rahimahullahu moom daf ko fonkoon lool ndax daf daan wax ne yéen ñi nga xam ne si ne yéenay jullit yi na ngeen xam ne li ñuy def kokki yéen lañ koy defal na ngeen xam ne lépp lu fi waay def ci seen tur la ko defee kon am ngeen intérêt moos saa yu nekk ngeen di ñëw di seetlu liggéey bi di ko xam waaye di topp li nga xam ne si moom la ñuy def kokki fii ci daara ji kon nag yéen teel ngeen a xam woote boobu teel ngeen a xam lan la woote bi wundu moo tax booba ba tey yéen a ngi jàpp ca bàyyiwu leen yàlla bu ngeen mas a bàyyi ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ndongo daara kokki yi tasaaroo fépp ci biir Sénégal yi tasaaroo fépp ci biir àdduna bi amee nañ leen njukkal ñi ngi fas yéene incha allahu taala lu ngeen nekk ñu nekk ci ak yéen ndax li daaray kokki nekk lu mas a nekk yéen a nga ca nekk ak ñoom ñu ngi jiital ci ñooñu ak cant goo xam si ne cant spécial la goo xam si ne ñu ngi koy jagleel waa kokki ñi nga xam ne si ne ñoom ñoo fatoo daara ji ñoo ko euh, fat ñoom ñoo ko jàppale ci zahir ñoo ko jàppale ci baatin euh, mbootaay gi nga xam ne si ne moom moo ëmb mboole seen ku mas a ci daara ji ci wooteem bii mu leen woowoon ngeen wuy siko ci euh, ci daara ju màgg ju tedd ji mi ngi yaakaar ci ku nekk ci yéen balaa mu fi jóge na jël tuuti ci temps incha allahu taala fas yéene dugg ci biir daara ji visiter daara ji xam daara ji bu ko defee bu boobaa bu ëllëgee ki si bu ñu ñëwee fii yéen wala ngeen ñëw fi ñun di wax ak ñun ngeen mën a xam li ngeen di wax waaye ñun yéen tamit ngeen mën a xam li nga xam ne si ne moom lañ leen di wax ndax jàppale dafa metti ci yéen a ngi ci sax boobu ba tey bàyyiwu leen ko kon bu ngeen ñëwee ci daara ji ba xam li fi nekk ci wàllu liggéey ci wàllu jàng ci wàllu yar ci wàllu taxawu yaakaar naa ne bu ëllëgee si biir loo fi indi woon da nga xam ne danga ko xeeb ca luñ la ci waxoon danga xam ne lañ la ci waxoon des na kon nag seen ñëw gi dafa bokk ci yi nga xam ne moom la mbootaay gi fas yéene di leen ko defal di leen ko yombalal te di bëgg fu ngeen toll di fi ñëw ndax seenu ñëw fi mooy yokk njàmbaar ñi nga xam ne si ne ñoo fi nekk. Euh, alxuraan nag xam ngeen ne dafa am ay ñooñam ñi ñu wuy si ca bokk ci ñooñu alxuraan yi yéen ñëpp ñooñu alxuraan ngeen waaye ñi nga xam ne ñoo ci xëy suba ngoon guddeeg bëccëg di waay sëriñu daara wala ñuy ay euh, mbootaay wala ñuy. këru diine wala ñu mënti doon ñooñu tamit ñu ngi leen di baral cant bu baax a baax leen li nga xam ne si ne moo tax a jóg euh, ndaje mi le yéen xam ngeen ko suñu communication ak yéen bi yàgg ba tey ñu ngi leen koy wax tey yaakaar naa mooy journée bi nga xam ne si ne moo clôturé moo mattali euh, effort yooyu nga xam ne si ne ñu ngi ko doon def fii yeen di leen ko wax di sant ñëpp nag di gërëm ñëpp di leen wax ne daara mbootaay gi am na ay naal yu bëree bari yoo xam ne mi ngi ko sumbu ca lëpp lépp lay tàmbali ba ba ca fin ba maanaam ba ca njobbaxtal la léppam mi ngi jëm siwaat fii ci daara ji mbootaay gi nekkul ak mbootaay goo xam ne dafay investir wala dafay wut ngañaay wala dafay wut bénéfice mbootaay gi li yitteem mooy daaray kokki bu mu jaaxle daaray kokki bu ay rangooñam tuuru daaray kokki fépp foo xam na si ne fa la ñuy mot fa la fa la ñuy tudd daara ñu tudd ko fa waaye fa la fa la ñuy représenté daara bu ko defee ñu représenté ko fa ci anam koo xam ne si anam ko rafet la ndax li fiy taw lii taw ci daara ji weesuwul ñett yi muy jàng jàngale formé jàng jàngale formé ak ñeenteel ba mooy éduqué ca moom mooy yar lool nag mission la boo xam ne daara ci mus cee jóg ca fasu ci yéen a moo tax ñun ñi nga xam ne si ne ñoo génne ci daara ji ñu waat ci suñu bopp di leen deelante ko suñu borom ne incha allahu taala bu ñu amee dërëm la ca ëpp ca dërëm ba ci daara ji la jëm si bu ñu amee ñaari dërëm dërëm ba genn wàll ci daara ji la jëm si lu ñu am rek incha allahu taala danañ ko xaaj ca digg ba wala la ca ëpp ñetteelu xaaj ba ñu andi ko ci daara ji loolu nag yéen jullit yi yéen lañ seetlu ne yéen a ngi ànd ak ñun ci loolu ci loo xam na si ne lu ñu yëg la ak lu ñu yëgul kon amee lañ leen jukkal naali nag naal yi ba ci ga solo mooy ñaar yi mooy waqfu waqfu ya wax nañ leen ko wa jaayidu wax nañ leen ko waaye li nga xam ne si ne bu ngeen demee ndakaaru lu ngeen fa fekk ci wàllu waqfu bi na ngeen xam ne dërëm bu fa jógee fii la jëm si ndax kat bu ñu sañoon ca loolum ñi ngi tox jëm ca bu soobee yàlla mooy li ñu lekk ci suñu kër yi incha allahu taala moom lañ bëgg daara ji di ko lekk ca loolu nag a béy la boo xam ne si ama saxir loo ñaanoon na ko te gis nañ ci yu bëree bari beleen bi mooy yéen mbokk yi mi ngi euh, mbootaay gi mi ngi leen di ci lépp loo xam ne si ne mooy euh, lu ngeen di def ngeen boole ca seen programme ngeen boole ca njàngum alxuraan waay ngeen boole ca jàppale daara waaye ngeen boole ca jàppale daara yi kokki ndax daara yi kokki kat ah, ruq-ruqaan yi yi ci biir Sénégal fépp fu mu ruqoo boo demee da nga fa fekk produit daara boo xam ne si ah, produit daara joo xam ne mi ngi jógee kokki ca ma ngi fay def liggéey boo xam ne liggéey bu rëy la ñu nekk ay ambassadeur nag ambassadeur fépp ci biir Sénégal fépp ci biir monde bi moo tax ñi ngi jagleel ak cant mboole seen kuy membre ci mbootaay gi surtout nag ña nga xam ne si ne ñooy jàngale alquran ñoo koy taxaw waaye ñu sant suñu membre yi nga xam ne ñoo nekk bitim réew ndax seen liggéey fees na seen liggéey feeñ na lool lool lool ci liggéeyu mbootaay gi mbootaay gi nag ay kuréelam mi ngi fépp na ngeen ko xam bu baax a baax ca li nga xam ne siine ne moom la leen di wax mi ngi ko teg ci ay représentant yi nekk ci partout dans Sénégal léegi li ma jeexale mooy di woote waat suñu mbokki association yi yi nga xam ne si ne ñoo nekk Sénégal ne leen njàngaleem alquran munta ànd ak féewaloo jàng yar munta ànd ak féewaloo di euh, formé munta ànd ak féewaloo bërki démb président de la république mi woote ne day woote ñi nga xam ne si ne ñooy jàngale alquran am na message bu mu lancé message boobu ngir yàlla yéen mbootaay yi bu leen ca kenn jiitu waroon ngeen caa nekk avant président de la république leen koy wax mooy lan mooy nee na état bi lu mu bëgg a def ca munu koo def bu fekkente ne ak féewaloo dafa am ci seen biir ñi ngi woor ittihaad bi ñi ngi woor rabita bi ñi ngi woor association yi nañu bennoo nañu nekk benn association bii nag nga xam na si ne mooy bu daaree kokki pare na joué rôle bu mag a mag ci loolu ca bu soobee yàlla danañ ko def ndax loolu mooy intérêt alquran mooy ngeen intérêt njàngum alquran kenn mënut a wax ne bu sëriñu ah, daara war naa féewaloo ak moroomum sëriñu daaram bu fekkente ne ay intérêt la intérêt amu ci njàngalem alxuraan bu fekkente ne lu ñu wut la lu ñu wut amu ci njàngalem alxuraan bu fekkente ne féewaloo da ci am rek c'est parce que dafa am leneen lu ca làqatu loo xam ne si ne kenn waxu ko ñun nag li ñu bëgg mooy euh, organisation liggéey njàngum alxuraan dafa jot ñu organisé ko tegaat ko ci ay base yoo xam ne si ne base yu solide la base yoo xam ne si ne képp ku ñu seen dana xam ne bu waree jàpp ci dara dana ci jàpp waaye amul droit di réere dara wala mu ignorer dara ndax ña ci nekk ñoom ñoo organiser seen bopp taxawal seen bopp lii la leen association bi wax di santaat ñëpp di gërëm gërëmaat ñëpp di leen ñaanal yàlla ngeen delluwaat ak jàmm fa ngeen jóge woon ku ci nekk nga yóbbaale barke bu bari euh, wërsëg bu bari nga yóbbaale faju aajo waaye nga yóbbaale lépp loo xam si ne yaa ngi doon mébét ci bis bi yàlla may la ko ama aqulu qawli hada wa astaghfirullah wa salaamu aleykum